Al Nassr ñi ngi bëgg a xolli ab gunóor ginnaaw ba nga xamee ni euh, jël nañ ki nga xam ne mooy Cristiano Ronaldo ak Vincent Aboubakar goney naar yi euh, di sol ay caaya ñoom tey ji euh, xëcc nañ keneen koo xam ne fi mu toll nii ñaar ñooñee ñoo leen ñor ñi ay espagnol international ki nga xam ne mooy Busquets nga xam ne fi mu toll nii daanaka moog Barcelone match ba léegi mu tas ki nga xam ni tamit mooy Sergio Ramos Al Nassr bëgg na ko Sergio Ramos moom nga xam ni sason bi nga xam ni moom la ñu nekk daanaka bu jeexe jeexee tàkk digganteem ak Paris Saint-Germain day jeex tàkk bu ko defee nag daanaka naar yi lu ñu bëgg mooy jënd star yooyu ñu nekk fële nga xam ni moo nekk Al Nasser ci Arabie Saoudi di fa doxal mu nekk loo xam ne lu am solo la waaye kii di Pape Matar Sarr nga xam ne gonek sénégalais gi uh, doxal na tey ji ci match boo xam ne uh, daanaka gone Tottenham mi doon nañ ko amal match boo xam ne uh, daanaka bokkoon na ci sumbaxloo ba nga xam ne dugg si nañ ci deuxième temps bi gonek sénégalais gi fubal na lu toll ci fukki minutes séngam fukki minutes yoo xam ne am na ci loo xam ne lu toll ci fukki paas ak ñaar yoo xam ne fukki paas ak ñaar yooyu nga xam ne doxal na ko mu doon paas yoo xam ne yu yoon la tubaab bi naan ko réussite duel yi nga ne nag gagné na ko ñaari yoo jël moom benn bi moom mii di militaire sénégalais nga xam ne xale la bu ndaw di door daje ci am per ci am soow moom moomee tamit daanaka doxal na ca bu baax a baax loolee am solo ci li nga xam ne mooy militaire Sénégal bi nga xam ne avenir la ca kon tey a daanaka la nu ko mosal ca match boobee xeebu ko benn yoon ñàkk a benn yoon fukki minute yi nga xam ne jox nañ ko ko moo waral mu rajaxe foofee toj ko bu baax a baax image yaa ngoog ngeen gis ko numéro 29 bi nga xam ne mooy numéro 29 sénégalais bi mën naa dalandi ci moom ci li ko xam ni commencé na koo doxal kon ñi ngi ñaan Tottenham ñuy jël sunu gone gi di ko coppati ndànk ay match yoo xam ni yu am solo la bu ko defee daanaka ah, muy régler ay kotam ndànk-ndànk ti xaar laneen loo xam ni mooy ëpp temps wala suivi nga nga xam ni ma ngi koy wax jot mu jot ci waaye loolu lépp comme ak seegul ah, Chelsea gi nga xam ne tey ji tamit Edouard Mendy bokkul woon ñi ne ci camp yi ke woon ci accès bi di Kalidou Koulibaly waaye moom noti Nottingham Forest nga xam ne loolee mooy équipe boobu ki mooy Cheikhou Kouyaté ah, daanaka dañoo témboo benn benn ci match boo xam ni Tiwaan la gone Chelsea ñoo njëkk dugal duggal fukki minute juróom-benn waaye benn footballeur lu toll ci juróom-benn fukki minute ak ñett la gone yi nga xam ne ñooy Nottingham Forest daal di égaliser un partout.